billahi min alshaytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wa salla allahu ala bahjati alayhi wa sallam yi nga xam ne yéen a ngi topp suñu jataayu shukran ngi leen nuyu fi ñu leen daan nuyoo rek ñu ci dakar midi point net di fadilati sunu kilifa Cheikh Alxasan Seen ayyadahu llahu wa nasrahu di gërëm mbokk yi nga xam ne ñi ngi topp jataay bi ci biir réew mi ak ci biti réew mi ak fu waay mën a nekk yiw wi yàlla di séddale jaam ñi yàlla bu mu ump kenn di sant nag bu baax suñu yaayu bopp xaaja màgget Diop di ko ziyaara bu baax ci weeru koor wi di ko ndokkale di ziyaare sama jigéenu bopp soxna Adama Thian di ziyaare bokk yu baax yi nga xam ne ñu ngi topp jataay bi di sama jigéenu bopp soxna Jeyna ba ba soxna Lisa di ziar soxna Diana bu Serigne Babacar Sy di ziare ñépp di jox kenn ku ne wàccuwaay bi mu moom mbokk yi ñu ñëw ak yéen ci teraanga yi nga xam ne moom la weeru koor ëmb ñu dugg ci fukki fan yi nga xam ne njéggal la ci la yàlla di xool jaamam ñi bëtu jéggalam bu tedd boobu euh, yàlla moomu sunu borom bi subhaanahu wa taala ci mbaaxam ak ci ngëneel yoo xam ne defal na ko xeetu sallallahu alayhi wa sallam euh, jox na jaamam ñi weer woo xam ne kenn xamul nu mu toll ci ay ngëneel bokk na nag yi ñuy soppoon ci lu dul weeru koor sax waaye rawatina biir weeru koor muy jokk ak bokk mbokk yi bokk yàlla ko jël def ko shaqiqa ci turu boppam ndax keroog bi mu koy wàcce dafa jafandu ci kaw boromam jooy yàlla ni ko looy jooy mu ne ko yaa ngi may wàcce foo xam ne su ma àggee danañ ma dagg yàlla ne ko man maay yàlla ana rahman wa anta ruhum yow man maay yàlla maa moom yërmande waaye yow yaay bokk maa la dagg ci sama tur wi wàccal ku la jokk ma jokk ko ku la dog danaa ko dog mbokk yi muy weer woo xam ne jokk ci bokk dafa baax ñun nag Sénégal am nañ ci aaday joxe suukaru koor muy aada ju rafet ju baax waaye nag ñu bañ ci tegoo lu ñu mënul ndax laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha yàlla tegul benn bakkan lu mu àttanul kon bu ci kenn jéem a yenu loo xam ne attanoo ko ndax suukaru koor du farata waaye nag dafa rafet ndax shaqiqatan ci jokk ak bokk parce que yonent sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ni sillu walla walaw bi siqi tamrin jokk leen seenuk bokk doonte la ci dogitu tàndarma ngeen koy jokkee kon mbokk yi bi lu mu digle rek day rataxal ak bokk euh, mu dellu waxoon ci xadisul quds ne euh, sillu euh, ne taallamu min ansaabikum maa tasilluuna bihi arhamakum na ngeen fexe xamal seeni njaboot wala na ngeen fexe gëstu seen jokkuwaayi mbokk yi ndax loolu bokk na ci liy dundal seenu bokk te mbokk yi yàlla kat waxoon na ne wattaqullaha allazi tasaaluuna bihi wal arham inna allaha kaana alaykum raqiba yàlla wax na ci alquran ne na ngeen ragal yàlla mi nga xam ne mi ngi leen fuuglu fu ngeen mën a toll yàlla seen dara rëcc ko waaye surtout nag bokk yi nga xam ni mi ngi ci sun biir ñu war ko jokkalante dox ko mbokk yi ak bokk dañ koy jox dañ koy dokk te dañuy wax ne mbokk li koy dox dara saxu ci kawar boo seetee ab tànk la ab ténq ak aw làmmiñ ñooy jokk ak mbokk soo bokkee ak nit mu ëpp la wërsëg bul ne duma ma seet si du ko seeti ndax koo xam ne boo demee seeti ko yaa fay jëlee te doo fa yóbbu boo demul yow yaa dagg bokk gi moom mi la tane tamit soo fa dee dem te du la jox loo yóbbaale su bokk gi daggee moo ko dagg Euh, danañu ci jël benn xikaaya bu ndaw rek benn góoru yàlla bu baax bu ñuy wax Abdullahi Xarasaani mu nga dëkkoon ca dëkk bu ñuy wax Xarasaani yàlla dafa degoon dafa dogaloon ci moom mu def raf du sukkanaa bëgg jaamu yàlla xam ne bu dëkkee ak ay bokkam danañu ko xatal mu toxoo fa mu dëkkoon dem Medinatul a dëkk foofa a ah, yàlla dogal mu dëkk fa doon góoru yàlla bu baax ñëpp seede jaamu yàllaam ñëpp seede ak njubam Euh, bokkoon na ci ay qualité boo ko dénkaan kayitu xaalis sax boo ñëwee këyit boo bu amee xotteeku wala foo ko bind lu dénkaane ba yàgg-yàgg boo ñëwee na ko ko joxe la la koy joxe yàlla dogal am benn góor yàlla bu baax bu ñëw dénk ko lu ma téeméeri libidoor bu doon ci suñu jamonoy tey ji dañu naan daf ko dénk millions yu bari bi mu ko wonee gannaaw yàlla dogal mu faatu bindul fenn dénkaane bi waxut fi mu ko denc euh, yàlla dogal góor ga tukki bi mu ñëw laaj ko doom ji ne ko sa baay de dafa am lu ma jëflante woon ak moom am lu ma ko dénk doom ji ne ko sama bàyyi de kum dénkante woon ak ku ne am na fu mu ko bind seet naa nag not yi mu bindoon yépp gisuma fenn fu mu bind sa tur ah góor ga xaw a jaaxle dem seeti benn nitu yàlla ni moom dikk jàmbat ko soxla sa mu ne ko da ngay dem ca zam-zam dangay bàyyi ba guddi gi sori suuf sedd nga dem ca zam-zam boo eggee nga jàpp julli ñaari ràkk dugal sa tànk yi ba ci sa ndigg soo ko wooyee bu fekkee ma nga aljanna dana la wuyu soo ko laajee sa ndénkaanil dana la fu nekk yàlla dogal góor ga dem def noona bi mu eggee ci zam-zam mu jàpp julli ñaari ràkk dugg ci biir samsam woo ko woo góor gi wuyuwu ko mu xëy delluwaat ci borom xam-xam bi ne ko la ma waxoon lépp def naa ko waaye ka ma seeti woon de dafa mel ni wuyuwul mu ne ko bu wuyuwul kon wax nga musiba ma nga jahannama na ngay def mooy da ngay bàyyi ba suba nga takk gawar boo demee ca yaman ca xur wu ñuy wax baxmut boo fa demee bàyyil ba suuf sedd nga def na nga defoon boo ko foowee bu fekkee ma nga jahannama dana la wuyu yàlla dugal góor ga dem def noonu bii min wi jotee mu yeesal njàppam julli ñaari rakk taxaw woo góor gi góor gi wuyu ko mu ne ko dootuma la laaj sax li ma la dénkoon waaye sama problème mooy noo def ba ñëw fi ak sa jaamu yàlla bu rëy bi góor gi ne ko dama amoon sama benn sœur bu ñuy wax faatimatu bintu Xarasaan euh, yàlla dafa dogal ñu bokk ndey ak baay waaye ma xaw ko sàggane lool ci sama wërsëg xaw ko sàggane lool ci wàllu yëg-yëg yàlla dogal na nag ci sàggane googu ma ko sàggane woon ngir gu def gu ma doon def raf du sukkanaa ngir mën a jege sama boromam ndekete yoo sama jigéen boobu ma fàtte woon ci la ma yàlla di mbugalee nii na ngay def mooy boo xëyee sa xaalis ba maa ngi ko denc ci suuf tànku lal ba foofa laa gas dugal ko ci benn potu liibar soo demee boo ko waxee sama doom dana la ko jox waaye maa ngi lay ñaan rikk waay soo eggee na nga dem ba xarasaan soo demee gis sama jigéen booba nanga fexe ba xolam sedd ta wax ko mu ñaanal ma yàlla njéggal yàlla dogal góor ga bu mu xëyee dem wax doom ji fi bàyyi bi denc dénkaane bi mu génne ko bi mu ko génnee yàlla dogal mu dem jënd ca wëliis xotti ay yére yu bari dem ba ca xarasaan laajte ba gis sayyidatuna Fatima jox ko yóbbante ba ne ko sa sa càmmiñ la de moo la jox lii ko bu ma jooyloo sama càmmiñ loola nga xam ne faatu na bu yàgg mu ne ko waaw dama ko fekk ci duma yu metti mu wax ma ne sàggane gum la sàggane woon moo tax yàlla di ko mbugal mbugal moom koy mbugal kon mbokk yi liñ ciy dégge mooy dañ ciy déggee ne mbokk foor na te suukaru koor mbokk yi dañ ciy jokk ak bokk dañ ciy dimbalante ndax yàlla nee woon nañu taawanu alal birri wa waa wala taawanu alal ismi wal udwaan na ngeen dimbalante ndimbal loo xam ne bu sottee mbokk yi kenn ku nekk da nga bég am loo dugal ci sa xol waaye bu leen dimbalante ndimbal loo xam ne mbokk yi bu sottee ku nekk fa kayit di wut sa morom yàlla santaanewul loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santaanewul loolu te yàlla mbokk yi dafa bëgg kuy jokk ak bokk dafa bëgg kuy jokk ak bokk te mbokk yi ci jokk bokk rek la nit ki di yégee ne mi ngi yokk beneen bi ci des mooy saa boo jéggee sa jéego di dox ak bokk ngir lu ko dundal jamono yooyu ngay jéggi jéego yo loola bokkatul ci sa dund dañ koy limité teg ko niñ ko mën a misaale mooy tey bu fekkoon montre buy dox la dañu naan la dañu ko arrêté ba keroog yàlla di dogal la nga doon dox jeex ñu bësaat bouton yi mu continue dox kon mbokk yi nañu fonk suñu bokk te dox ko te xam ne yàllaa ñu ko sant ndax ak bokk kat dafa bokk ci yàlla di laaj te yàlla woon nañ ci alquran wa aw bil ahdi inna al ahda kaana mas'ula yàlla newoon na na ngeen matal kóllëre yi na ngeen matal dëxalante yi ndax kat dafa bokk ci yi nga xam ne man yàlla seen borom danaa leen ko laaj yowmal su ngeen ñëwee ci man kon mbokk yi nañu matal ak bokk ndax dafa bokk ci jokk kóllëre waxoon nañu ko sànq yàllaa ñu ko njëkk a sant ci boppam ne ñu nañ jokk sunu bokk kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañu ca fi war a jaar fépp mbokk yi ak bokk li koy dundal mooy joxe ak dox loolu bokk na ci lii dundal bokk kon yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp di ñaanal bokk yi nga xam ne ñu ngi topp suñu jataay ci seen émission shukran ci dakar midi point net euh, wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu